alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi euh, Cheikh Mahdi ci euh, jubbanteem maa ngi maa ngi gërëm suñu mbokk Cheikh Abdou Karim Mbacke Abul Makarim ci wax yu jekk yoo xam ne wax na ko vraiment jëmale ko ci man waaye xam naa mbaax bu nekk ci moom rek la moom ci lay ci lay jëfandikoo ñun tamit ñu ngi koy gërëm ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla may ko jàmm yëkkati ko dafa ci yaramam ci yaramam yal na yàlla seddal yaramam yal na yàlla yëkkati ko naka noonu tam ñu gërëm xalifa murit Cheikh Mountakha Mbacké moom tamit vraiment ci koor gi yónnee na fi ay teraanga pour dimbale dimbalante ko mbokki jullitam kooku itam ñu ngi ko ci gërëm di ñaan yàlla yàlla na yaramam yàlla yàlla taxaw ko yàlla na yàlla barkeel seen liggéey barkeel suñu liggéey ñu ñëpp jaay rasulillah